salaamaaleykum sëñ bi. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay ziar bu baax. waaw maa ngi leen di delloo ziar bu baax. mi nga xam ni ambulant man nga macha allah di jaay ay écouteurs di jaay ay casque euh, macha allah noo gisee corona bi ak couvre feu bi. Mhm. waaw euh, euh, coronavirus bi day ni ma ko gisee muy Covid 19 dafa nekk loo xamante ni balaa la bu yàlla suñu borom subhaanahu wa taala wàccee. mu nekk loo xamante ni nag ab jullit dafa am taxawaay bu mu ci war a taxawaay. mooy lan. mooy ba ci njëkk mooy dellu ci boroomam bu ñaareel bi mooy ñaan yàlla yàlla jëlee ko fi waaye bu ñetteel bi ah ñi nga xam ne ñoo ñoo suñu wàllu kaaraange suñu wàllu wér-gi-yaram li nga xam ne moom lañu digal ñu fexe ba def ko mooy set ah, ci kër yi set ci suñu yaram waaye setal mbedd yi waaye li nga xamante ni moom la ñu digal ci wàllu couvre-feu mooy ñu toog ah, jàpp naa ne bu ñu ko defee daal ah, yàlla mën a fee jëlee feebar bi. kon daal maanaam teel wàcc bi yéen arrangé wu leen yéen ambulant maani wala. waaw teel a wàcc bi day euh, enragé wuñu waaye nag dañ koy nangu sant yàlla xam ne ne li ko waral mooy li xew. ndax koo xam ne da nga liggéey ba huit nga wàcc tey bu ñu la trois heures ngay wàcc xëy na la nga daan am ndoo ko am waaye nag mbir moom bu ñëwee rek muy jàngoro lépp loo xam ne mën na koo xeex ba mu jógee fii rek lool su boobaa dañ koy war a ànd d' accord ci ànd ci xeex ko bu fekkee dañoo gis ne teel a ji mooy li ko li jëlee man d'accord naa ci ñu ñu ñu teel mooy couvre-feu bi daal kon léegi nañ gën a fonk couvre-feu bi. di tëdd comme ni ko président joxe ndigal. am na ci solo lool ndax dana tax ñu xeex jàngoro ji. kon ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal. salaamaaleykum sëñ bi. waaw maa ngi lay nuyu kay waaleykum salaam. yaa ngi ci jàmm bu baax. maa nga ci jàmm bu baax a baax kay. waaye ñu gis la par des fois da ngay wër di ambulant yow mi nga xam ne yaa ngi ambulant yi di ko jaay. Euh, ndax affaire bi ni mu daan doxee mi ngi koy doxee ba léegi wala taxaw. mu koy doxee nu nga ni doxinu kàkkatar daal ci lañ nga gis fi ne nii. doxinu kàkkatar waaw. maanaam tànk bu jóg daal bu soo yàlla dañuy xaar ba beneen ayawaat jógaat rek fi te maanaam ah, trop yow da nga di am ñaata ah mu koy daanaa xëy sax tan léeg-léeg ma am ñaari junni ak ñetti junni ah. tey jii fi yaakaar naa ñaari téeméer dana ma tëg ñaari téeméer da leen tëg waaw ah, damay na yàlla ko yàlla saafara ñu ngi lay ziar baax waaw jërëjëf di fii tey di laaj ci maanaam bi bi mu commencé ba léegi ak couvre feu bi nga xam ne dañuy teel a wàcc ci kanam tuuti marché bi kii ndax yéen ban heure ngeen daan jaay ak euh, ndax li ngeen daan jaay yen a ngi ko jaay wala yéen a ngi gis clients yi ba léegi. ah waaw jërëjëf ñoo ngi lay sant di la gërëm di delloo laaj maanaam fi ne nii njaay mi dafa xaw a am nu muy demee parce que ñun daanu liggéey euh, diggante euh, sept leen de ñëw huit di liggéey ba quatorze ba quatorze heures ñu wàcc def pause boo ñëwaat. boobu ñu liggéey baa na léegi nag affaire yi moom dafa kaw a changé lool te bi instant bi arrangé wu ay dégg parce que léegi duñ day jaay fukki nit léegi juróom leen mën a jaay loolu arrangé wuñu donc teel a bi arrangé wuñu fii ne ni wax dëgg yàlla. a ah, kon métti na trop daal. oh métti na métti na trop. daan gis fukki nit léegi juróomi nit ngeen di gis. waaw ah, waaw loolu moom wax dëgg yàlla loolu leen gis instant bi. ah moom ngeen di gis. waaw ah, loolu de xam nga ni métti na. waaye nag lool lool loolu waaye nag li ci li li ci li ci dimbalee nit ñi rek mooy dee leen teel a tëdd defe ni ko président waxee te raxas loxo yi bala ñoo lekk di jëfandikoo gel bi am na ci solo lool kon ñu ngi lay jaajëfal jërëjëf. tey ñu dox ba dajeeg yow macha allah nga ni yow jula nga woon. waaw jula woon maa ngi dëkk fii ci eh, Touba. Touba. doon jël fii samay bagages di yóbbu ci àll bi di am dépasse mais léegi maa ngi nii depuis boobu ba maa ngi toog di xoole daal. loolu daal metti na daal ci yow. metti na lool mais ndigal la ñuy déglu daal lu sëñ bi wax rek ña nga ca daal fii ba bu doon ñetti weer ñeenti weer rek ndigal la ñuy doxee quoi. ndeysaan dégg nañ loolu kon metti na loolu daal maanaam danga daan jënd ka jaay di dem ci dëkk yëpp wala danga daan dem. luuma bu am chaque jour may dem ci benn luuma fii ba Tamba fii ba Casamance fii ba Kolda fu ne laa daan dem di yóbbu bagage mu mel ne ni luuma yi dañ ko fermé waaw luuma yi yoon yi dañ mënatuma daaru ma si sax mënuma faa dem instant yi kon daal métti na seen côté yéen jule yi métti na lool métti na lool mais ñun ñaan yàlla sa borom saafara ko ban delluwaat ci lan nekkoon ginnaaw ndigal ay murit lañ ci ndigal la ñuy doxe moom nan sant rek tey déglu ndigal rek sa borom saafara jàngoro yëpp daal mais sonn nañ fan yi lool. noo gisee couvre-feu bi nag teel a bi. ah teel bi kat moom xanaa jéem a bu ñu xëyee rek jënd li ñu war a lekk bu 5 heures ñu yóbbu ko kër ga fanaanoo moom rek ba doo bu ñu xasee dugg kër 4 heures rek dootuñu génnaat quoi. salaamaaleykum maa ngi nii nag taxaw macha allah ak sama mbokk nawle di doom bur bu mag ñun géwél ñi nag yëg nañ mbir mi ndax ba affaire bi amee ba léegi dara. ma tajeeg sama nawle bi muy ku yiw di ko baax ma laaj ko nu ma gisee teel tëdd mi ak corona bi. metti lool di wax nag asalaamaaleykum wa rahmatullah géer ñu baax ñi nga xam ni yàlla dogal na sëriñ bi daal digle nu dimbalante ngir jëmi yàlla ku nu dimbale danañ jël fi ñu toll. ndax ngénte amatut ceet amatut màggal amatut sonn nañu lool it nag ku ci jàpp wax dëgg yàlla danañ xam ne jàpp nga ci jamono ji moom wax dëgg yàlla teel a tëdd gi métti na. teel a wàcc gi métti na te dañoo yor ay kër te mënuñoo ñàkk xëy nag di xuutar xuutar yi loolu nag moom damaa defe ne loolu moom wax dëgg yàlla président Macky Sall war na ko yëg ak mboolem euh, gouvernement bépp rek ak talibi sëñ Touba yi daal métti na ci géwél yi wax dëgg yàlla. ah waaw de boo ko waxee ma ma dëggal la ko ah ndax fi ni nii màggatu ba de ba sere ci bay wopp waaye lu nu wax rek dañ naan dara ba la soxla macha allah waaye nag. yàlla dafa dogal ni euh, lu jóge fa yàlla rek comme ni nga ko waxee léegi dañu koy delloowaat ci yàlla sant yàlla mm. ndax léeg-léeg du ñàkk sa géer orange money la mm. wala nga jekki-jekki toog rek sa géer ni la set si man ñu naan café nga ñibbi mu jox lay junni yu mag ku ci man mi nga xam ne sinap ci laay yëngu Touba gépp ay setaan samay seti macha allah léeg-léeg ma toog ba nam sama géer rek xew boobu damay dugg rek wax ko càlla la gam bokk bu may dem ma naanee café ak ma suba naan ci café macha ah, wax dëgg yàlla nag léeg-léeg nag tali bi suñ tuwaay am na ci ñoo xamante ni wax dëgg yàlla maa ngi gis martyr ñi ku ci mel ne sëñ Mountakha Bassir mii nga taxaw bu Cheikh Mouhamadou Mountakha Bassir mii ak sëñ Mbacke mi ak bokkam yu baax yi sànq da ngaa dégg ma naan leen yalla ni yàlla lafal cat ndax ñoom dañuy dimbalee ngir yàlla di jàppalante ngir yàlla di dimbalante ngir jëmi sëñ Touba teel bi bu fi ñëw tëbët xong booy dem tëbët dana weex tàll ñoom nag jar na noo ñaanal kon sant naa la gërëm naa la jërëjëf ko ñu la yàlla nu yàlla boole jàmm